kon loolu dafay tegtale màggaayu jaamu yàlla gu réy gii ndax liñ ci digge ci xiiwal liñ ci teg ci mbugal la muy wone mooy lii lu réy la te Mawlaana Cheikhul Xadim wàcce na ñépp xam nañ ko ak julli kuy dem bay julli ci géej gi waxuma la julli ci géej gi waaye fa ñu ko yóbbu woon ku fa mën a taxaw julli ay lambar naag yeneen yu ne mel te kenn fekk ko fa kenn fekk ko fa moom kese xam nga bu nu am bu nu doonoon ngor bu nu amoon ngor bu nu doonoon ngor bu nu amoon ngor kenn du wax mbir mi ni nii laa ko gise sëñ bi nii laa ko gise rek la ñu war a wax ndax ba mu koy liggéey moom képp la nag saa ji bul ci dugal sa xalaat bokkoo ci ayaa bahru waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba da ngaa wàññi ko dem lekk sa cerey lay noppil bu ci kenn joxe xalaatam bamba rek a war a wax mooy boroom micro bi ku ci indi sa xalaat nañ la ko delloo loolu muy dëgg sëñ tuubaa nee na alhamdulillah benn mbokk dafa ma ne yéen ni ngeen amee saas man ko lan mu ne ma yéen seen sëriñ bi lu mu war a def rek da ko bind far ma ne ko moo na téewul ni di ko dóoral de naan góor gu baax nee na ak waaju baax nee na ak bàyyi nee na ak maam nee na sa bàyyi lim ci fekkee bariwul ndax demul woon ca géej ga fii la ko bàyyi woon te ba mu ñibbisee amul jot kañ la la ko wax te bu dee dëgg dina dëppoog li mu bind bu ñu dëppoowul wacc ko fa wàcc ko fa sëriñ bi nag li mu nu digal mooy fonk waxtu yi juróom tey ànd akum njàpp te di ko defe ci mbooloo lii la dénk te lii la nekkoon mag ñu ko waroon it lii la ñu nekkoon Mawlaana Cheikh Sidi Muxtaar sëriñ Cheikh Mati Lay radiyallahu taala an wa nafaana bihi mi tabax jumaay ji yal na ko yàlla fay dafa mas a wax loo xam ne nii dama caa waaroo jumaa yi Tuubaa mu ñëw ni nañuy defaraat col gi ndegete kon moom ma ngay xool nit ñi li ñuy soloo nañuy moytu colug jigéen ñi mooy kiy sol legos ak kiy soli wax ndekete yu ndaw ndawaan yooyu mi ngi ko doon bàyyi xel loolu mooy gëm diine loolu mooy diine la ñor ba li jumaa ji riir ak li ñu koy tëngam wër ko wet gu nekk di dawal bu geesoo ndi jooram ñu wër ko nekk ci kanamam nekk ci fépp ndekete woo bëtam daw na ba gis lu ko neexul ci biir jumaa ji mu wax ko bëtam daw na ci biir jumaa ji mu gis fa lu ko neexul mu wax ko looloy gidd kon kooku bu ne fonk na julli faaqan wax na dëgg fonk na julli taxawal na ko sonnoon ci lool di ko jox àqam di ko jox àqam buñ ci gisee lu jaaduwul mu ni du noonu Mawlana Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bi mu doonee xalifa jumaa ji ci kanam da daan bari ñu fay jullee mu romb fa fekk ñu doon mun nañuy dem ci jumaa ji mbaa ci ginnaaw looloy sunna ndekete woo gaa yi ba léegi ñu ngi doon defar ndoneelu sëriñ bi Touba sëriñ tubaa bëgg-bëggam ñu ngi koy xool li mu bañ ñu ngi koy xool te teg ci seen bakkan kon weer waa ngoog lii la ñu andil wane ni julli lu màgg la ñi fonk yàlla ñëpp fonk julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ju'ilati salaatu qurratu ayni sama xol bu sedd ci julli la amee bala maa bég rek ne allahu akbar nee mooy sama xol bu sedd ñu baax ñëpp it foofu la seen xol daan nekk Cheikh Abdou Khadir Mbacke daawoo ayibal nit mukk mukk mukk mukk koo xam ne dina ko dina ne asalaamaaleykum geesu gis ko ku mu gis ci jàkka ji boo ci waxee dara mu ne la déet dinaa koy gis sama jàkka jii de nga defee loolu ay waxam la <laughs> ah déedéet wax yonent bi la de yonent bi sallallahu alayhi wa moo ni ku ngeen gis muy jaabante jàkka ji fashadu lahu bil iman ku ngeen miin ci jàkka ji na ngeen gëm na yàlla seede leen ko fa kanamu borom bi subhanahu wa kon jullee ngoog dañ koy waajal ci ci sangu gis nga lii feebar bii digle jullee ko ci jiitu julli nee na raxasul bala ngaa dugg ci jàkka ji ñu ni boo jàkkaarloo waa ji boo waxee say lor daan ko man ngeen a wàllante julli ni wanante leen ginnaaw làng leen mu ni boo waxee yi génn julli ni noppi leen kon kenn du ko wàllaate ci jàkka ndax moom jàkkaarloo wunu waxunu far sunuy gémmañ du ñëppi bay génnee lor xanaa imaam rek lañ ko war a wax de moom mi nga xam ne bu ne asalaamaaleykum geesunu te yàlla dogal na dañuy sori waaye sàppe sii kenn mënu cee wàll kenn yàlla sàkk doo ko gisu doo wax doo def lenn lu dul xool borom bi subhaanahu wa taala sant ko lool nag ci xiiwal gii mu nu indil xiiwal gii mu nu wallahi al azim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 moo wax ni nañuy fonk jàkka ji di jox orma jàkka ji booy dugg ci jàkka laabal waxal bismillah ñaanal ngëneel bul geesu bul wax bul yëngutu bul jéggat yàlla ngay jàkkaar lool sa sëriñ bi nga fonk sax bu xasee toog dootoo ko jéggi am déet waaw yàlla miinu bindu moom nu nag te man noo rey fii ma taxaw léegi léegi léegi te kenn du ko mën a faj ñu naan moo moom de léegi la doon waxtaan fii rek faatu na ñu ñun ko nañ ko dandale rek bu ñu paree yóbbu ko Touba képp kat du ngeen ci dool leneen dandale teg rek <laughs> waaw waaw dandale teg ne képp la bu ngeen paree summi ah dandale leen mbuumi kat daa weex fexe leen ba buum ko laal mbuumi daa weex fexe leen ba buum ko laal la ma dencoon ca kër ga. yow ma tubla sarair jamono bu ne ngeen ma di leen ko wax yow ma tubla sarair mooy kañ kero ba secret yi feeñ la ilaha illallah kero bi àddina bépp teewe nii teew ñu yëkkate waa yi ne waajaa ngi nii ñuy wax li mu doon def démb foofu ngeen defee ni mooy yow ma tubla sarair déedéet kero ba mu faatoo ci ëllëg sa rek la yow ma tubla sarair dañoo daal dikk dajib armu waalam ubbi koofar foolam xew xooli kontam xool ay dencam jàmbur njaayee koy wëlbati naan waa waaw kayit ñu ne wii kayit de nangam la fii de bor la fi amee woon fii de dañ ko fee ameel bor fii de diwa ko moom fii de noonu na diwa ko moom fii de lim fi def keroog yow ma tubla saraay yi ñëwulam te ku ca gën a góorgóorlu nga ni kii kon nag bokk yi sëriñ Touba nee na auditeel sa bopp balaa bis boobu nu auditer sunu bopp xam ni yàlla rek mooy yàlla nuy jox teggin jàkka ji dinaay wax ba tàyyi ni jàkka ji dafa bees ñu baree bari joxaguñ ko darajay jàkka ndax dañoo dañoo bi nu tàmb bi sànce bi jeexee daa yeggagul waaye jàkk kenn du fa wax déedéet jàkka kenn du fa wax kuy wax sax doo ko teree waxal doo xëcc waa ji ni ko bul wax da koy bàyyi rek di jàkkaarloog yàlla ba imaam toog dinu wax nuy diglu jamono boobu nag moo ci raw bu yilimaan xasee yëg ci min minbar yonent bi nee na boo waxee ba àggal ñu taxañ li nga fi doon julli yëpp sànni la nee na demal ñibbi indi woo jële woo fi dara yonent yàlla musal kon teggi ni jàkka yaakaar naa ni euh, ñi fiy def ay waxtaan war nañ ci xuus bu baax a baax ndax jàkka ju bees toujours war nañuy jàngal nit ñi nuñ ci war a dunde nuñ ci war a dunde léeg-léeg damay am problème problème bi mooy lan bu ma nekkee ci salle bi ñu noodu ca jàkka jële ma génn jaar fii bis bu ne rek am na lu dugg sama bopp bi ni ma yaa ngi dugg ci jàkki te ñaari rakkat yi yaa ngi jaar ci jàkka ji te julli woo ñaar rakk nuyu woo jàkka ji de yaa ngi koy jéggi dem xanaa fuqaaw yi ñoom si sëñ Isaa dañuy ma ubbee danañu ma ubbee wutal ma ak yolamal ba loolu ma man koo def waaye bu dul loolu rek man damay am problème ci romb foofu le yal na yàlla defal tawfiix te teg na ci yoon wi yoon wi nga xam ne moo di aw yoonam yoon woo mu gën a gërëm te yàlla defal nu bëggloonu sëriñ Touba bëggloonu mbindum sëriñ Touba bëggloonu ay waxam di ko jëfe boo boobaa jox nañ ko addiya addiya jii nga xam ne moo gën a rëy mooy nga jub ñu ne lu la jubal nga ne lii dama ko daan def baaxul ma dégg ñu ne sëriñ bi tere na ko banaa ko lii ko dawuma ko def ma dégg ni sëñ bi nee na nañ ko def def naa ko loola jub nga bu keroogee jox nga sëriñ Touba addiyee joo xam ne yonent bi nee na moo ëpp addina bi yëpp nga def ko ci wurus moo ko gën a bari yal na yàlla defal tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullah